te du mujj fenn ay étudiants di ci nekk ay victimes euh, dinañ jël ay exemples ci semaine yi di ñëw parce que bari na yu mel noonu man am na yu ma ci xam yu implanté. dinañ si d' investigation Aliouma Mbaye nañ dem. ba ñu tolloo ci waxtu wi nag dañ leen jox li yéen a xëy fësal euh, tribune yéen a dafa dikk ci euh, opposition bi ak président Macky noonee la ko tuddee ne nag faw ñu dem ci confrontation ndax jamono ji loolu moom mooy xeeñ confrontation bu nga xam ne mi ngi dox si diggante président Macky nag opposition bi ndax nag fu mu nekk moo xam ci opposition bi euh, ci euh, maanaam Yewwi Askan Wi ax nag euh, nguur gi maanaam président Macky Sall fi mu nekk ni waa Benno Bokk Yaakaar ku si nekk mu ngi yëkkati sa kàddu di fëgg sa dënd nekk du may sa morom dara loolu nag ñu gis ne kon jamono ji fii réew mi jëm de sagar mu ngay xeeñ te bu ñu ko seetaanee bés bu fi tàkkee manees nañu wax ne kenn du si mucc kon nag nañ si bàyyi xel bu baax kaay bi foofu la génne Alioune Tinde nag balaa sagar di fi balaa comme sagar ngi xeeñ balaa mu fi tàkk nag nañ ci xëpp ndox Alioune Tine yor na ndoxam di ko ca xëpp ah, ni nag fu mu nekk nii ngalawaay mboolem activité politique nañ ko teg ci suuf moo xam ci opposition bi moo xam ci euh, pouvoir kon nag activité politique yi nañ ko teg ci suuf ngir ak ah, dal daal di am ci réew mi ndax lii di xeeñ ñi kat neexul benn yoon euh, Cheikh Abdou Bara Dolly xam ngee nekkoon kon député ba mu ngi ci kaso bi ndax kàddu ya mu yëkkati woon teg ko euh, ci kaw président Macky Sall ñenn ñu nag Amath Suzanne Camara mi nga xam ne moo doon wax ne Ousmane sonk dañu ko war a rey moom it nag ñu ngi xaar ñu dugal ko ci kaso bi yéenekaay bi euh, dikk na ca ci di la tribune Vox Populi coow li coow li moo di spécimen bi nga xam ne dañ ko jox ni bulletin bu jour vote yi mooy bulletin bi ñu war a bi nga xam ne euh, waaye Yewwi Askan Wi moom lañ leen jox nee nañu photo Ousmane Sonko daf caa nekkul te ba ñu déposé waxoon nañ leen ne kon photo Ousmane Sonko moo si nekk bi ñu ñëwee nag di retiré nee nañu bi ñu leen présenté photo Ousmane Sonko nekku si kon nag du ñu ko du ñu signé euh, waxuma laax nag di di di di di ko retiré seen loolu moom xel xalaatu ko Déthié Fall nag nee na ci liste nationale bi Yewwi Wi élection yi moom wax fa dëgg neex yàlla xel xalaatul muy am ci miim réew euh, te yeewi askan wi euh, du si bokk seen liste euh, nationale te seen manifestation yi nga xam ne dañu koy woote benn doxum ñaxtu sa Ziguinchor toogaanu ñaxtu fii ci diwaan Ndakaaru fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin le 17 gannaaw suba lay doon nee nañu nag xel xalaatul ñu koy bàyyi moo xam autorisation day am wala amul dañu koy amal ñoom seen manifestation boobee Alioune moom li koy yitteel jamono ji moo di nag ñi xam ne ñoo nekk ci opposition bi ngalawaay nañu xoolaat jamono ji seen doxalin yeewu fitna gi jaru ko fi euh, nañu ko waxtaanee ndax nañu ko jëfee koo gis nanu ko waxtaanee moom moo sa euh, mën a jiitu yeewi askan wi nag dafa mel ni loolu dégg ko ndax nee nañu fi mu nekk ni jaay doole gi dafa dakk yeewi askan wi se radicalise ndax nag nee nañ avec ou sans autorisation seen manifestation yooyee dañu koy amal dinañ dikkaat ci meurtre bi nga xam ne moom moo am sa kunun lu ngeen ko sànq suñu jotaay xibaar ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck benn élève bu nekk ci cm moo jam paaka benn moromam bu nga xam ne dafay dawal saret foofees kunun mu doxe fa ñàkk bakkenam moom nag dawoon na sax waaye mujj mujj nañu ko tegaat loxo moom euh, xale boobee nekk si euh, CM2 Sud Quotidien ne bras de fer la moo am ci diggante pouvoir bi ax nag euh, opposition bi Yewwi Askan Wi manifestation la ñu woote le 17 juin Euh, gouverneur nag génn na bataaxal ne nag benn manifestation buy dox propagande kenn du ko bàyyi mu am ñëpp njort nañu kon manifestation bu yeewi askan wi euh, kenn du ko autorisé looloo tax waaye yeewi askan wi takku taxaw ne nañu ñaanuñu yalwaanuñu màjjaaluñu ñoom seen droit la ñu amal manifestation dugal nañ seen déclaration dañu koy amal donc nag fi mu nekk nii lii di xeeñ manifestation ne bu doon bu doon gaz gaz bi tuuru na booy kosati muy tàkk yéenekaay bi di Sud Quotidien kon foofu la euh, euh, génne euh, ñu ñëw ci Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañu nag dëkk door a fay koy tas te ki dëkk di mat fay woo dina si baax yéen a saay nga siiñ moo xam ne am ngay bëñ waa Benno nee nañu fu mu nekk nii dañuy jàkkaarloo waa Yewwi Askan Wi duñu leen may dara lu ñu woote rek ñoom dinañ leen ca wuyu yéenekaay boobu foofu la génne réew mi quotidien def ñaari photo yi ajaratu Mimi Touré moom taxaw na waaye sa pegg ba jàkkaarloo Ousmane Sonko rassemblement 17 juin la ñuy waxtaanee yeewi se radicalise Benno Bokk Yaakaar nee nañ bu fekkee yéen waaye yeewi yéen a mën seen manifestation te ñu war leen ko tere boo ngeen xam ne boo leen wàccee ci terrain bi di ngeen fi fekk Benno Bokk Yaakaar bulletin bi nga xam ne moo waral euh, coow li participation Yewwi Askan Wi ci législative yi waaye Yewwi Askan Wi neen du ñu signé ndax nag photo Ousmane nekku si waa Bennoo nag nee nañu fi mu nekk nii waa Yewwi Askan Wi manipulation bu ñu nekk ci bopp askan wi faw askan wi xippi seen i gët te xam ne yaa yeewi ñoo def seen i erreur bopp ñoo yàqal seen bopp seen liste ba pare nag bëgg ko giiñ euh, pouvoir te nag euh, wax fa dëgg neex yàlla ba ñu fa ñuy defaree seen liste waa Benno Bokk Yaakaar nekk fa woon euh, kon nag bu ñu manipuler askan wi Alioune ne fu mu nekk nii nag fu mu nekk ngalawaay nañu sotti ndox ci réew mi nañu fi sotti ndox mu sedd nañu jënd glace ndax nag fitna gi nga xam ne mooy xeeñ bés bu fi jógee dinañ tal leneen te nag kenn du si mucc l'observateur nee na législative yi 31 juillet Yewwi Askan Wi ak direction générale des élections euh, diggante ba neexul bu doon sëy ñu ne tas na wala nag euh, fu mu nekk nii euh, fay nañu ba ku nekk dem na sa sa sa côté participation bi nag bu coalition Yewwi Askan Wi nee nañu xel xalaat lu mu bañ am ñoom waa Yewwi plainte bu Déthié Fall ak nag leeral yu Djibril ngi directeur de l'unité d'assistance électorale bu GRADEC l'info ñëw ci Yewwi Askan Wi bi nga xam ne dañuy forcer barrage de ci l'info nee nañu Yewwi Askan Wi fu mu nekk nii day forcer barrage ñoom nee dañuy forcer barrage fu mu nekk nii ndax nag am nee nañ autorisation bu ñu autorisé wul manifestation ñoom nee nañ dañuy manifester par ah, force. barrage moo ko ajiwul nañ leen bàyyi ñu toxal rek. voilà ñoom nee nañ fu mu nekk ñu ngi forcer barrage ñoom waa waa waa waa Yewwi yéenekaay bi foofu la génne libération ñëw ci meurtre bi ma doon wax sànq du ñàkk El dina ci ñëw tout à l'heure ci tës sëkkoonun ngalam eh, xale bi eh, cm de la nekk jam moroomam bu nga xam ne eh, charrette la yoroon foofee sëkkoonun ngalam ba mu doxe fa ñàkk bakkenam abri provisoire yi nga xam ne yàgg nañu ko fi jàmbat élagement sur le député du peuple yàgg na ko fi jàmbat nee na abri provisoire yooyu nguur gi taxaw na nag pour jëlee ko fi ndax gouvernement bi décaissé na lu toll ci cent vingt milliards ngir réew mi kenn dootu fi gis ay classe wala ay écoles yu nga xam ne nii ay ay ay ay kirtinding la ñu ko defalee maanaam ay saxet wala ay euh, lu ñu for ci mbedd mi rek dajale ko ngir xale yi mën saa toog wala nga dugg ci classe fekk ñu teg ay briques teg ci seen i kaye loolee la ñu fi bëgg euh, jëlee yéene kaay bi euh, ñëw na ci l'évidence ñëw ci euh, opposition bi nga xam ne mu ngay défier pouvoir bi nee nañ manifestation bi neex naqari dafay am secteur tourisme ak transport aérien Alioune Sarr wax na liggéey bu am solo bu nga xam ne nee na euh, def na ko si les échos ñëw ci ceex euh, Thierno Bocoum bi nga xam ne weddi na kon Yankhoba Diattara fu mu nekk ni nag Thierno Bocoum ak Yankhoba Diattara fu mu nekk ñu ngay santi sànninte ay pic ku si nekk mi ngay yóbbante sa morom ay kàddu yóbbante galgal nag ubbu làmb yeewi fu mu nekk détermination engagement la ñu àndal seen manifestation bi nee nañu autorisation wala amul autorisation dañuy wàcc si euh, terrain bi Boubacar Camara nag mu ngay interpellé président euh, euh, Macky Sall moom Boubacar Camara interpellé na kon président Macky Sall tiitaange nag la ñu ne meeku fii ci diwaanu Ndakaaru ndax nag askan wi fu mu nekk ni nelawtunu ba yandoor ndax nee nañu soo moyul le 17 juin yëngu-yëngal dana am affrontement dana am confrontation dafay am ci diggante takkader yi ak waa yeewi askan wi ci confrontation. jàmm rek. waaw hmm? jàmm rek. dañ leen jox autorisation ñu manifester. ku nekk moo gën a noppale dal moo gën a noppale. comme nañ war nañ manifester nañ leen bàyyi ñu manifester rek wax fa Alioune Tine sax loolu la loolu la gis nee na fi mu nekk nii euh, coow li jaru ko fi euh, nañu lu ñu mën a def ba ba ba tempérer rek ba coow li wàcc wax fa dëgg neex yàlla moom moo gën lu ñu ci mën a def nañ ko si def ndax fii mi toll tal nañu leneen lu dul ay euh, xaañanteex defante ndax nag tabaski bi dikk na ba noppi te nit ñi ay xar la ñu tal l' observateur dafa ñëw ci yeewee askan wi waaw dikk nañ ci sànq de ah l' observateur ñu euh, euh, jeexal euh, yaasin yaakaar naa ne waxtu bi daanaka daanaka jot na daanaka jot na am na bu ma gisoon bu laal xaw xaw a laal làmb de ban mbër moo si doon waxwaay am na mbër may nuyu baale waale bu baax tafatin ndax démb rek mu ngi seede ne kon ñun lay ñun lay seetaan fa mu nekk da nekku Sénégal temps yi tafatin donc mu ngi ñuy suivre daa mel ni boobu rëcc na ma garaawul kon nag yaasin mhm. yaakaar naa ne mënees nañu ko fi ndar keppe Euh, daal di soobu ci euh, jotaay xibaar bi ci kàllaamay Kocc du ñàkk nañ si ñëwaat ëllëg. eh bien Hadj Mansour nañ dem. waaye yow askan wi nee na ñu fa ñu nekkoon fa la ñu nekk ba léegi du ñu tuxu benn yootaat ca fa ñu taxawoon. incha allah fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bi muy aljuma daañu def manifestation dëgg marche pacifique la muy doxub jàmm itam ci diwaanu Casamance daañu ko def ci même jour boobu la situation boo xam nag ñu bëri ñu ngi koy càmbar ni bu fekkente ni bi gouverneur la mu wax ma nga ca ba léegi ñiitam itam la ñu wax ñanga ca daanaka mbopp mu ñu sotti essence te almet tim ko la dañ ci yàlla musal Abdoul Mbaye moom itam euh, taxaw ci daal di euh, dellu soit ci kàddu président Macky Sall ak itam la muy xaar ci élection yi li ci war a doon itam taxawaayu euh, ministre bi nga xamante ni wala premier ministre ak Macky Sall ni mu mel ni dafa tële ci man ko taxawal ak itam. li nga xam moo méngoo ak li xewoon ci mois de mars bi cest di dire càmbar na bu baax tolluwaayu doxalinu politique gu Sénégal gan la woon euh, ci euh, Sen TV moom Abdoul Mbaye lu may loolu itam dinañ wax ci euh, drame bi nga xam ne moo am ci Kounoune Gallam ndaw lu am fukki at ak euh, juróom jàpp fukki at ak juróom benn euh, rey kenn koo xam ni waxambaane li moom paak la ko jam loolee des na ko faram-fàcce tam ci biir xibaar yi tàggat yaram bàyyi ma anta mbuub la ñu ciy àndal yéene kaay mantu lay ci mundoy faram-fàcce gi Mame Mbaye Ndiaye